asalaamaaleykum mbokk nañ journal du Sénégal TV amtu nañu mbégte ak a baax ne moom mooy euh, jàmmalaay waaye bi ñu ñëwee ba jàmmalaay dañu dugg fi nga xam ne moom mooy kër Cheikh Ousseynou Kane mi nga xam ne moom mooy borom xalima gi tey nag boo leen gisee ñu teew fii tey bi nga xam ne moom mooy nekk guddi laylatul xadri guddi laylatul xadri nag moom chaque année ndeysaan nii la koy defee dafay woo ay taalibe ñu ñëw ci biir këram ñu fas yéene fee ndogu guddi gi nag ñu fas yéene ko waxtaan ñu jëm ci wàllu Serigne Saliou kon mbokk Cheikh Ousseynou Kane ko xam xam ko Serigne Saliou xam ni moom mooy sëriñam moom mooy léppam kon mbokk internet yi kër gi nag la nekk instant bi di waajal li nga xam ne mooy ndogalu yaa ngi ndogaluñ ba pare ndogalu neex wax dëgg yàlla ñun ñi aussi barkeel nañ ci aussi bu baax rëcc wuñu benn ñu aussi ñu fi ñëw kon mbokk internet yi Sénégal TV kon image yi nga xam ne moom laa leen di waaj a wan moom moo xew fii di préparation wu ndogu yi di préparation wu li nga xam ne moo nekk organisation bi di préparation wu lépp li nga xam ne tey dara du leen fumb kon incha allah rabbi ci kanam tuuti ngeen gis image yi kon mbokk internet ci kanam tuuti ngeen gis lépp li nga xam ne xewoon na fii image yaa ngi noonu. Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké ba nañu gaañe fi nekkoon jàpp yaa gëñi di koon yow mi nu may kun fa yakoon gaawe nu ngir sa yërmande sëriñ bi yaru nu yoru nu bu ñu sëriñ Saaliw yaru nu yoru nu bu ñu réew ay Mbàkke bun doxitam di wërim réew te nu sax ci loo wax ne waaw ngir bëgg a am sa yërmande sëriñ Saaliw Mbàkke te nga xam lu yoon wi ba mu weex ñu di aw te bu ñu xeex te bu ñu yàgg bu ñu jeex ba gis seen gi yërmande te nga fegal nu déggu gaaw ak rekki gëm ak déggu ñaaw seen sax du la wax nu ne waaw ngir bëgg am sa yërmande te nga yóbbu nu jannatul ula Sëriñ Saalu yóbbu nu jannatul ula mooy kër ga amul tiis ak balaa te boole no kulal mala kulal mala mu wan gën gi yërmande sëriñ Saaliw Mbàkke yàlla na nu ci yow ba dee sëriñ Saaliw Mbàkke yàlla nu ci yow ba dee ay sëriñ Saaliw nga sax nun bañ a dee len nu ëllër matade ngir yàlla sa yërmande sëriñ Saaliw te nga may nu wër dën walaal ay Mbàkke bandi yot loo manal tanga defal nu gaañu kunu laal kunu laal rëccu ko ngir sa yërmande man de li may ñaan li may ñaan jàlla jàllaloo ñu dem bay ci laay yàlla nu àndandoo nanu àndandoo ba ca bay ci laay yàlla yar nu yor nu bu buñu réew ay mbàkke bun dox itam di wërim réew te nu sax ci loo wax ne waaw ngir bëgg a am sa yërmande sëriñ Saaliw Mbàkke te nga xam nu yoon wi ba mu weex ñu biti aw te bu ñu xeex te bu ñu yàdd bu ñu jeex ba gis sa néegi yërmande te nga fegal nu deegu gaaw ak rekki gëmag déggu ñaaw seen saxtu la wax nu ne waaw ngir bëgg am sa yërmande te nga yóbbu nu jannatul ula sëriñ Saalu yóbbu nu jannatul ula mooy kër ga amul tiis balaa te boole no kulal mala kulal mala mu wan gën gi yërmande sëriñ Saalu Mbàkke yàlla na nu sax yow ba dee sëriñ Saaliw Mbakke yàlla nu sax ci yow ba dee ay sëriñ Saaliw nga sax nun bañ a dee len nu dee ngir yàlla ak sa yërmande Saaliw te nga may nu wër dëgg walaal ay mbakke bandi la loo mën a laal tanga defal nu gaañu ku nu laal ku nu laal rëccu ko ngir sa yërmande man de li may ñaan li may ñaan jalla jalaaloo ñu dem bay kilaay yàlla nu àndandoo nanu àndandoo ba ca bay kilaay yàlla am sa yërmande sëriñ Saaliw Mbàkke te nga xam nu yoon wi ba mu weex ñu di aw te bu ñu xeex te bu ñu yàdd bu ñu jeex ba gi senee gi yërmande nga fegal nu deegu gaaw ak rekki gëmag deegu ñaaw tem sax du la nu ne waaw ngir bëgg am sa yërmande te nga yóbbu nu jannatul ulaa فرزال يبن جنة الغلا mooy kër ga amul tiis ak balaa te boole no kulal mala kulal mala mu wan gën gi yërmande sëriñ Saaliw Mbàkke yal na nu sax ci yow ba dee sëriñ Saaliw yal na nu sax ci yow ba ay sëriñ Saaliw nda sax nun bañ a dee nu ëdër mata dee ngir yàlla sa yërmande sëriñ Saaliw te nga may nu wër gën walaal ay mbàkke bandi lo yot loo mën laal ta nga defal nu gaañu kunu laal kunu laal rëccu ko ngir sa yërmande man de li may ñaan